ama yow tam waxoon nga fi ay wax de. li ma wax yëpp loo ci gis. Hmm. loo ci gis li ma wax yëpp dañu góor góorgóorlu premier match amul kenn Sénégal ñëpp ko wax Diallo léegi wax na ko dañu gagné demi finale jour ne eh gagné wuñu moo tax <laughs> c'est parce que xam nañ li Sénégalais yi bëgg hmm. c'était la coupe hmm. assoiffé d'avoir la coupe comme bëgguñu woon gis dara ni ko président waxee. exactement loolu moo nekkoon ci bopp Sénégal yëpp bëggatuñu sax ñu ñuy wax quoi que soit on a été exigeant. Mm-hmm. et cette exigence. ji a fait que mu ànd ak ouverture entraîneur bi. il a compris que les critiques bi Serigne Saliou di wax c'est parce que en un moment donné il était un peu fermé. Mm-hmm. vis-à-vis même de ces ñi nga xamante ne ñoo daan footballandoo démb ak barki démb ñooñu aussi gis seen bopp. ne mais kii pourquoi mu am ce comportement là te pourtant ñun ñëpp am yéene pour mu gagné. Mhm. loolu moo indi woon cette malentendu ce malentendu là mais après tu as vu ce qui s'est passé il a été sage il a gagné en maturité. Mhm. il a compris équipe bi wala boo bëggee dem de l'avant il faut écouter tout monde ñu synthétiser xool li gën tey gis ngeen ce qui s'est passé te loolu dafa nekk loo xamante ni ne dafa am solo mais nee na Coupe d'Afrique bi yëpp fa lañ ko fa bale du stade benn stade bu ndaw mais Sénégal di ko yàlla may gars yi xamuñu ko sax benn stade bu ndaw bu nekk fii cees fa lañ nekkoon di football ba dem Coupe d'Afrique du noonu de. waaw mais non dama wax rek non ndaw na par rapport yenn stade yi. pour war la li ñu yàlla may rek. pour man man suñu capa la nga wax suñu capital humain. pour wax suñu capital humain daal au delà des infrastructures. fii lañu ñu ñafee Mathieu moo tax dañu war a féliciter stade de Thiès. la dañ ko fa a yóbbu. dina am tournée nationale. waaw parce que foofu moom dañ ko fa war a yóbbu. Hmm. pour wane ni muy def mais hmm. dama toog ak ay nit. oui. dama ne hmm. sëñ bi wax na ma ne waa bi wax. waa ji ah, man de tiit naa ma ne ko loo mun ma ko wax na de na dafa yónnee na ma ne ko lu mu wax mu a nee Touba bu fa kenn xumbal ma a ko kon gañe nañ mu ne ma yow looy wax nii ma ne ko bu fa kenn xumbal mooy Sénégal dina gagné mais foofu bu mu fa am. <laughs> waa ji ne alhamdulilah pourtant yow li ngay wax dëggal de mën na ko loolu la sëñ bi wax. mooy dimanche incha allahu bi dinañ gagné coupe bi waaye Touba beneen lieu la. Mm-hmm. waru fa am ne li ma gis man préparation finale bi. Mm-hmm. ay nit yoo xamante ni dañ doon xuloo di dox di baalante ax. Mm-hmm. baal ma ak kii na baal ma ax kii na baal ma ax ñuy wër dëkk bi di ko def. football la ko mën. c'était extraordinaire ñu ñi di génn ay sarax ay xale yu ndaw di def ay sarax seen waajur di leen yónni ñuy seet ñuy ñuy saraxe ci dëkk bi mu mel ne dañu nekk si période mburum koor. loolu c'est extraordinaire comme mburum koor mais nga naan sa part ñu ne ay sarax yu sénégalais yi di génn. waaw waa Thiès nee nga wax bu Rufisque te nga bu leen xeebal seen. stade wax bi ñu may boobu ko waroon yokk sax dañ ko war a moo ñu sauvé moom am làmbaay am ñoom taxaw ne ou la coupe ou rien ah ñooñu il mérite toutes les félicitations. c'est vrai. il mérite récompensé à tous les niveaux te bu ñu amatee une belle victoire de cette manière. mun mm-hmm. ñun ñëpp ku nekk qu'on soit content de ce que nous avons seet maintenant nan lañ koy améliorer. surtout avec les les infrastructures. c'est important avec les écoles de football. parce que les écoles de football c'est comme les partis politiques on en a plus que plus de 500 ou 300. il faut daal rationaliser. ñu xool réorganiser. Mm-hmm. taxawaat ko que képp kuy créer école de football mu am ay condition ñu bañ a bàyyi n'importe qui muy créer ay école de football di jël xale yi di leen fayloo ay 1000 francs 2000 francs après xale dévier dootuñu ñu bëgg a. seen ah. àdduna yàqu parce que am ba pare tabaxaat suñuy infrastructure sportive. surtout Demba Diop defar ko. Mhm. stade amitié ñu defar ko. créer maintenant des espaces il faut que cette cette ñëpp fàtte ne tamit tout le dañu xeex pour mu yor équipe nationale. Mhm. il faut que ko aussi n'empêche mais critique ak football moo ànd. est-ce le plus critiqué depuis bu ñu non ça dañuy dañuy waxtaan rek ça mm. ne critique ak football moo ànd tey je pense que critique yi doon am moo tax Alioune arrivé fi mu arrivé parce que yi am na critique boo bu critique amee danga fi am ay analyses yoo si jël lu baax ak lu bon loolu moo lay mun a tax nga arrivé fi nga arrivé. Mm. beneen bi mooy li ma d'accordul mooy critique personnalisée nit ki moom laa d'accordul parce que tey boo toogee ci télé man Aline je parle pas ñun ñu tous on a des bonnes relations ak moom man surtout man j'ai une bonne relation bu rafet laa am ak moom. Mm-hmm. mais boo toogee ci télé nit ñi ñoo lay seetaan tey booy def analyse boo gisee lii mu bleu da nga naan dafa bleu boo gisee mu weex da nga naan dafa weex. parce que duma toog tey si télé bi bëgg lu neex nen na ba public bi may déglu di may mere. Mm-hmm. du toog tamit bëgg lu neex public bi ba ne yow dama lay gaañ aussi tamit. Mm-hmm. il faut être raisonnable ci sa wax ak si sa jëf. saa dine mooy li may expliquer critique moo football a nekk moo ànd euh, analyse moo football a ànd mm-hmm. mais lépp looy gis li ngay analyser tey analyser suba. ak lii di xew tey mun na bañ a nekk benn. mais amul courage ba nga xam ne analise bi nga def tey kooku nekk ci état nekk ci forme nga accepteel ko ko suba mu def nga def beneen analyse kooku nekkul ci forme. nga accepteel ko ko mais ci façon wax bi lay doon. parce que en tant qu'un sportif tey quand booy def ay analyse walla ngay critiquer man jeune ne dis jamais nit ne xamoo dara. parce que moo boobu dafa diis parce que boo ko dundee nga pratiquer ko nga xam ko waroo ko wax mun nga ne ah kii de jour bi tey nekk fi nga ko doon xaar nekkul foofu li mu waroon def defu mais mais en tant que sportif kon également naka ngay analyser euh, euh, ñi mu bokkaloon équipe 2002 euh, taxaw peut-être di ko di ko critiquer également ba yëkkati yenn yenn mots yoo xamante ne c'était assez fort quand même à de Aliou ñoom ñoo gis nga sport bi. Mm. ñun ñëpp ñoo ko bokk. nous mm. tous on se connaît. oui. benn ron la ñun ñëpp xamante nañ suñu. Mm-hmm. y a des certaines moom laa lay wax. mënuma ko nangu surtout. sa camarade boo xam ne yéen a bokkandoo woon terrain football bi mais aussi tamit beneen côté am na certaines critiques yoo xam ne foog nga wax ko ko parce que da ngeen ko dundandoo yéen ñaar xaw ma ndax comprendre nga fi may expliquer loolu aussi tamit foog ñu bàyyi si xel. Mm. tey jii am na ñu ko doon critiquer ñun ñëpp critiquer nañ ko. Mm. ñun ñëpp def nañ ay analyse il de a des gens qui étaient positifs il y a des mm. mais si biir loolu tey. je donne un exemple si biir birkitu yooyu moo tax si Cissé màgg pour te donner un exemple Kalilou bi mu